yi faal yërmande yi faal doole biir faal ak bitey mam Cheikh Ibrahima Faal benn goore yabulaay asalaamaaleykum man la Lamine Mboup waa Sénégal euh, jóge bitim réew ca Suisse ñëw fii ci Sénégal sama réew ah, ci émission Tam Tam ah, ak musique d'ici et d'ailleurs je suis très content d'être ici chez au Sénégal ak gaa ñi nga xam ñoom ñëpp laa àndal ci émission bi. nag moom euh, benn yoon dama ko donn ci samay maam waaw Latal ak Maajoor ak Malicoumba Sala Mbaye man xalaay sama may doomu ci buur géwal yu njukki yu mag yi ñu ni bëj géwal njukki ma commencé nag tëgg sabar en mille bi ma amee 12 ans. yooyu ma nee 12 laa commencé di jouer sabar di jouer sabar di jouer sabar ba yàlla def ma dem bitim réew ah bi ma demee bitim réew tamit avant may dem nag tëgg naa géwél yu mag yi fii waa waa Papa Dundiaay Rose ndam si yàlla si Alaaji Matar Mbay vie vie Matar Mbay bu xaar yàlla ñoom Lama Gueye ñoom ñoom ñëpp maa ngi leen di nuyu en passant suñu mag ju góor ja baaba Diop ñoom ñëpp maa ngi leen di nuyu di leen ziare te xam ne rek tukki moo waral lii waaye nag jibisi naa Sénégal indi leen album bu rafet ak dama leen ko woyal nag ak boole ci tëgg ak lépp ci biir daal sama musique nag comme dama nekk bitim réew euh, musique bi dafay dafay soppeeku dafa changé dama dama ko gën a moderniser dinaa def reggae dinaa def afro dinaa def mbalax boole ci yoo xamante ne daal doomu aadama ñëpp ciy trouver seen seen seen seen seen seen seen place daal bëggoon naa dama def musique boo xam ne daal c'est c'est c'est mondial voilà ñëpp ci mën a trouver seen place ñëpp ci mën a am bànneex yàlla def na maa ngi jógee Sénégal en 1992 bi ma demee ma dem en Europe ah, gis yu bëri dox lu bëri am fa njaboot ah, yàlla def nag foo nekk rek ndeysaan am na lu bëri luy passé ndax àdduna ku ne xam na yàlla moom ñëwuñu fi rek pour ñuy def am plaisir waaw waaye nag ba pare ma doon professeur de musique di jàngal ay tubaab musique dem taxawul Sénégal en coré au festival de Drôme international en en 2006 bi ma ñibbisee ma changé nag ñu ni ma Lamine daal baat bi neex na da ngay woy engagement bi nag li ko waral mooy dama di doomu Sénégal doo fii ku ne xam na li fi xew ma dem bitim réew am na lu ma gis eh, jàng aussi en même temps euh, gis àdduna daal moo waral ma jël engagement def ko muy sama euh, cheval de bataille euh, di taxaw lu ma war a gis la loo xamante ni daal am naa ci intérêt réew mi am na ci intérêt ma wax ko pour tamit sensibiliser pour aussi éveiller les jeunes sénégalais pour ñu gis beneen affaire en même temps éveiller ñi nga xamante ni ñoo fa nekk aussi nekk bitim réew des fois mu xaw a euh, doy waar seen côté un petit peu ma doon nag doom buur géwal géwal nag moom mooy xorom ci cin loolu moo waral fa ma nekk rek euh, engagement bi ci sama deret la nekk je dois le partager je dois être pour mon peuple je dois être pour les Sénégalais et l'Afrique entière maa ngi tàggu Sénégal di béggee Sénégal ñun amuñu lu dul Sénégal fa ñu nekk Sénégal lañ fa nekkal maa ngi remercier waa RTS di leen di émission tam-tam bi yàlla na fi yàgg ndax découverte bi ñu def musique d'ailleurs ñun bu ñu ñëwee yéen boo leen ñu jàppalewul ñun duñu dem maa ngi leen di gërëm di leen sant di bëggee waa Sénégal yëpp di ñaan album bi mu tudd porte à porte muy porte du Sénégal et les portes de l'Europe tuddee ko mu tudd Lamine and Full Fayda mooy group bi waaye port à porte laa ko tuddee may booy dakaar ah yéen nag waa Sénégal yëpp laay laa ko may bëgg naa ñu dinaa ko génnee Sénégal yéen ñëpp ngeen am ko te jàppale leen ci mu jëm kanam ak saa yee kon nuyu naa Sénégal gi yëpp maa ngi leen di bëggee